li li ñuy wax rek mooy ñu bëri seetlu nañ ni ku mel ni neex a dëkkal man neex a dëkkal laa ko parce que nit koo xam ne da ngay dëkk ak moom te bëggul jàmm ci réew mi neex a dëkkal lañ ko yooyee jàpp naa ni état du Sénégal war na jël ay responsabilités mu régler problème waa jooju de façon définitive parce que nag crédibilité état moo taxaw suñ ko defulee boo ëllëgee nañu xam ne ñun Sénégal ñun ñëpp ci jungle lañ nekk na ku nekk def lu neex taxaw ne kenn du ma àtte wala du ma wuyu ji justice loolu menace la pour état du Sénégal menace la pour citoyen yëpp donc état bi dafa war a jël ay responsabilités Ousmane Sonko dem wuyu ji devant les tribunaux d' abord am na lu ñu koy jiiñ loolu c' est strictement privé mais il a incité à la violence il a fait tuer quatorze personnes dans ce pays à cause de son appel à l' insurrection aussi ne doit pas être être euh, ne, doit le Sénégal devient bu bu bu bu wuyuwul bu fekkente ni attewuñ ko ci loolu réew mi daanaka ndand fay-fay lay doon boo xam ne ku mu neex lu la neex nga def et cela c'est dangereux lu lu la pour Sénégal te moom ak keneen ku fi mën a ñëw suba ku fi mën a ñëw suba lii buñ ko réglé wul ah je yaakaar naa ni du doon loo xam ne luy baax ci réew mi la damay faral di joxe kaaw président de la République Abdou Diouf licencié nañ fi ay policiers mu tas ay ay famille mu doon lu metti ci réew mi jamono jooju waaye boobu autorité état moo taxawoon. te loolu da euh, dafa taxaw ngir préserver kattanal état ba nga xamante ni mu mën a def liggéeyam normalement te tey yéen gis ngeen ba addunay tukki policier Sénégal wala leneen yu mel ni ay armée ak yooyu dootuñ grèvati parce que lan am na lu fi xewoon am na président de la république Abdou Diouf nu mu doxe woon ba loolu doot fi amati donc état bi na jël ay responsabilités sinon. danger la ñuy nekk ñun ñëpp. mu mel ni moom nee na pare na pour dem procès. non ragal ragal mënu ci am état mënul ragal état mënul ragal mais ñun dañuy alerter rek dañuy alerter en tant que fonctionnaire en tant que homme politique. parce que am na loo xamante ni buñ ko réglé wul mën na topp réew mi bu ëllëgee kenn du reconnaître benn autorité ci dëkk bi te ñun ñi jàng droit ñëpp xam nañ ni état territoire la autorité ak ak population. bu ci autorité bi génnee état amatul donc état boobu dañ ko war exercer pleinement et sans état d'âme et sans parti pris pour que vraiment koo xamante ni tooñ nga ñu yóbbu la fi nga xam ne ni moom la mbax ne doonee benn. moom mu ne pare na pour dem procès euh, wàllu Adji Sarr tamit nag El Hadj nee na pare na pour dem est-ce que yow yaakaar nga ni état Sénégal ak ni dossier bi mel ak coow li ci nekk pare na pour organiser dossier bi ñi ko ñi ko yor ñoo xam li ci nekk man xaw ma lu ci nekk mais li ma leer daal mooy Sénégal képp kuy sénégalais ñu woo la da nga war a dem ak koo mën a doon. prix bu mu jar lu mu jar pour loolu am na ko jar mais réew mi du doon sakosu golo boo xam ne lu waaye neex def lu la neex nga wax loolu dafa war a arrêter parce que loolu wóorul ci Sénégal donc état bi moom laay wax encore une fois na jël ay responsabilités ñu régler loolu parce que lu ko may nekkatuñ ci état ci jungle lañ nekk lu ko may nekkatuñ ci état ci àll lañ nekk lu waay neex wax lu waay neex def te loolu je pense que du sax ci état.